yéen nag ñiy gune yàlla yi mu bëgg ci xolam roy ko ci loolu ngeen wéer seen dund ci mbëggeel mel ni kirist mi nu bëgg ba joxe bàkkanam ngir nun di sarax suñu jébbal yàlla te neex ko ni xeetu laj ko leen waaye naka njaaloo ak bépp sobe mbaa bëgge jëlale naa jëf ji sax waaye bu ko làmmiñ tudd ni mu jekke ci gaay yàlla yu sell yi daw leen it yu jëkk dee ni wax ju ñaaw mbaa waxi caaxaan ak kaf yu bon te ngeen sax ci sant yàlla na leen wóor ne kenn ku jukke woo ndoxaan sobe mbaa bëggee maanaam bokkaale yàlla kooku du am cër ci nguuru kirist ak yàlla bu leen kenn nax ci ay waxi neen ndaxte jëf yoo yooy tax meru yàlla di wàcc ci kuréelu ñi ko déggadil kon nag buleen séq ak ñoom dara lëndëm ngeen woon waaye léegi leer ngeen ndax seen bokk ci boroom bi dund leen nag ni ay guney leer leer mbaax lay meññ njub ak dëgg dëggal leen ci seeni jëf li neex boroom bi te daw lépp luy jëfi lëndëm yu amul njariñ bay weer sax ki koy def ndaxte waxtaane sax li ñuy def ci nëbbu lu ruslu la waaye leer lu mu ëmb fesal ko ndaxte lu jaxasoo ak leer di leer looloo tax ñu ne yeewul yow miy nelaw te jóge ci biir néew yi kon kirist dina ne ràññ ci yow ni leeru jant buy fenk noonu sàmm leen seen dundiin waxuma ni ñu amul xel waaye ni ñu am xel tey jariñoo jot gi ndaxte ñu ngi ci jamono ju bon buleen ñàkk bopp nag waaye xam leen li coobareek borom bi buleen màndi it ci sàngara liy ndey ñaawteef waaye fees leen ak xel mu sell mi di waxante ci seen biir ci ay taalifi sabuur ci ay woy ak ay cant yu tukkee ci xelum yàlla di woy ak kañ borom bi ci seen xol gërëm leen yàlla baay bi ci turu Yeesu Kirist borom bi fu ngeen mën a tollu ci lu mu mën a doon teg ca nangul sa moroom ci biir wegeelu kirist naka yéen jigéen ñi nangeen nangul seen jëkkër ñi su doon borom bi ndaxte góor mooy kilifaak jabaram ni kirist nekk kilifaak mbooloom ñi gëm muy jëmmam ji mu sàmm ni mbooloo mi nag jiitale kirist noonu la jigéen ji war a jiitale jëkkëram ci lépp yéen nag góor ñi na ku nekk bëgg jabaram ni kirist bëgge mbooloo mi ba joxe bakkanam ndax moom ngir sellal ko ak kàddoom ba mu laab ni ku sangu set noonu dina ko jël mu mel ni seet bu ñu waajal di mbooloo mu soloo ndam te gàkkul rasul taqul leneen waaye mu sell te amul sikk na bëgg jabaram ni mu bëgge boppam bëgg sa jabar bëgg sa bopp la ndaxte kenn mësula bañ sa yaram waaye danga koy dundal di ko fonk noonu it la kirist fonke mbooloo mi ndaxte noo di cëri jëmam mbind mi neena moo tax góor dina beru ndeyam ak baayam di taq ci jabaram ñoom ñaar doon benn loolu ëmb na mbóot mu xóot man maa ngi wax ci lu jëm ci kirist ak mbooloo mi waaye li teew na góor gu nekk bëgg jabaram ni mu bëgge boppam te jigéen ji wekk jëkkëram